mbokk yi ñu ngi leen bu baax a baax di leen ngeen daal jàmm Sud Sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan rek nga abonné nga activé cloche bi bu leen ko di fàtte nag di like vidéo bi vraiment c' est très très important bu leen neexee aussi di bàyyi seeni ay commentaires. xibaar yi dañ koy daal di tàmbalee ak ligue sénégalaise football professionnel bi am na jàppale ne doon nañu amal ndaje ci bëccëg bu àllarba bi. la nga xam ne nañ ko jàpp mooy que championnat bi ren kat képp ku ko bëgg a seetaan ci di nga fay lu mat 800 francs CFA par match ci Ligue 1 bi de même que Ligue 2 bi par PPV loolee nag liñ ci jublu nag bu ko defee club mën am ay recette ci noonu dañ que Buzz Prod de afish affiche bi nga xam ne ñoom amal loolee xam ngeen ne ñoom yëngu nañ ci làmb ji waaye nag ak image yu rafet yu taaru lool que lañ bëgg gis bu ko defee kat ñu mën ko ci. LSFA TV mooy que Ligue sénégalaise de football professionnel dina am seen chaîne bopp et que nag loolee nag ñu bëri salué nañ ko am na ñu ngi critiqué waaye ak lu mën di xew championnat bi daan nañ ko wane ci YouTube bi gis nañu engouement bi waaye nag quoi pas nga expérimenté ko on verra kat li nga xam ne mooy mujjantal bi. Lionel Messi ak Cristiano Ronaldo la nga xam ne fësal nañ ko mooy kat ñoom ñooy joueurs yi nga xam ne jàpp leen seen ay équipe respective ñoom kat amal nañ triple triplé 10 triplé di lañ amal loolee kenn mosu ko gis bu fekkee Lionel Messi numéro 10 foofee ci Argentine moom ginnaaw gi jaloorem boobee contre Bolivie dafa dugal téeméeri biom depuis ba mu fa tàmbalee doxal mu ne nag vraiment nag xamul woon ne sax yegg na ci lim bi yooyee mu ne nag vraiment moom du xool wàllum statistique yi ak li ko ëppal solom nag mooy que équipe am di gagné. ñoom nag am nañ respect lool jox nañ cër kat seen capitaine boobee mën naa ne kat laata kenn di jàll nga xalal yoon de bu ko defee kat en tant que capitaine mu mën leen jiite ek vraiment loolee kat ñu bari luñ seetlu la ek ginnaaw gi jonte yooyu ñu ngi fësal ci classement bu li nga xam mooy sud amérique seen zone boobee pour jëm ci segg bi bu lay mën a may nga dem ci mondial 2026 argentine ma ngay wéyale yoonam de am na 22 points colombie 19 points uruguay di ñetteel am point points Brésil def jaloore contre Pérou moom nag mu ngi ñeenteelu toog bi même nombre de points que Uruguay. Lautaro Martinez mu ne wala Ballon d'Or bi naam nag vraiment nag lu mucc ay ayib la ndax kat vraiment remporté ne lii mooy championnat ak waa Inter et mu dugal 5 bi ñu gagné lii mooy Copa bi kon moom mi ngi ciy teg bëtt bu baax a baax ku ko gagné nag. vraiment loolee roy ndax kat kooku di Escoloni waxoon na ko mu ne nag kooku di jouram boobee di Lautaro Martinez yaayoo na bokk na ci joueur yi mérité nañ kat ñu jox leen raaya bu ni mel. Raphaël Varane bi am na añ na ay godaasam la nga xam ne nag moom la wax mu ne vraiment nag ñi nga xam ne seen xarañteef ci football kenn du ko lam-laame ñenn ñi sax mën naa ne mooy yàlla la ñu leen di wéyalee ay jeunes yi mu ne nag actuellement nag. vraiment mi ngi commencé wàññeeku de ek nag wàllum créativité bi vraiment nag bu ñu migi ba xool mi ngi bëgg a ek am na li nga xam ne mi ngi bëgg a football mooy walum robot yi mu dugal nañ ko ci wàllum système ak schéma de jeu yi ndax mën am do am liberté ci ni nga xam ne moom nga war a doxalee moom ba doxal ci Real de Madrid di Ancelotti daan na ko bàyyi ak sagum nag vraiment muy doxal ndax football ak erreur nag ñoo mën a ànd waaye bu ñu demee ci robot yi beneen level lañ koy yóbbu Victor Roque mu ne nag gis na boppam bu baax nag foofee ci Real Betis ek nag jàppaleen moom ak njabootam mu ne na xamul lan mooy xew ëllëg nag ndax club boobee di Barça moo ko jébbal club bu Youssouf Sabaly boobee Real de Madrid seen yéene seen bëgg-bëgg bu ñu soxandikoo ci The Athletic mooy kat ñu recruter benn défenseur central mu ñëw dooleel leen ek nag ci mois bu janvier bii dafa jàmp nag dañ ko yittewoo Real de Madrid boobee nag ngi pii si bëddee kookee di terrain Alexander Arnold jàpp leen seen cible priorité la muy soxandikoo ci kayitu xibaar boobee The Athletic waaye nag jàpp leen Liverpool moomee nag commencé nañu waxtaan di ak seen ndaw boobee mooy que voilà doomu anglais boobee bu a wéy lay sukkandikoo ci ci Marca. Atlético Madrid ginnaaw gi jàpp bu baax bañ doon amal ay jëf yëm kenn rafetlu ko woon si derby bi ñoo am contre Real de Madrid yéen supporter di ko ne jàpp kat euh, comité d' de la Liga boobee kuréel bi teg na leen ay dante et que tribune bi am yenn ultra ñoo fa newoon di semer voilà excusez-moi du terme le bordel kon ñoom ñëpp vraiment nag ay nañ leen kenn du fa toggati kon dina fi et UEFA moomee aussi teg na ay daan ndax seen jëf yu xeetoo noonu lañu doon amal ek nag daan nañ leen lu mat 30 000 euros lépp dinañ ko fay waaye club boobee dina jël ay matukaay nag mën a identifier ñi nga xam nañ ñoom ñooy def jëf yooyu ndax kat vraiment ñooñu ñooy ay supporters dañoo ñëw dongu dee pour yàqal leen. et xupp nañ leen mooy que bés bu loolee amatee nag waxuma la sax benn partie ci stade bi lañuy tëj waaye stade boobu yëpp bu ñuy doxal huis kolo lay doon xam ngeen ne kolo lu du doon lu baax ci club yi ndax foofeekat des na fa dàq ay koppar. Manchester United noppee naa di leen teg mbagg Real de Madrid bu canadien bi mooy Alphonso Davies xibaar boobu ñu mën ko soxandikoo ci AS ndax été prochain mooy que juin 2025 dina doon benn agent libre bés bu xaatimul contrat waa Bayern des nay am sañ-sañu xooli fu ko neex ek entourage bu Kylian Mbappé na ñu ngi seral seen ndaw boobee. jàpp leen bu baax mu nekkat kookee di Kylian Mbappé taxewul laalewu ca la nga xam ne moom la ngay tuumaal ci Suède ndax liñ fasal mooy que dafa yàkkataan benn ndaw si jigéen mooy que agression sexuelle loolee lañ fasal nag waaye RMC ma ngay fasal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dossier bi mu nekkat ñooñu liñ ci jublu moo ñu yàq ko image bu jour boobee et que mën naa ne sax tàmbali nañ ko ndax saay bu ñu xëyeekat média ñu ngi cay fësali xibaar le parisien moom kat fësal benn xibaar ne Kylian Mbappé sax moom jot naa tax ci mbir moomee de ñoom aussi bañ ko suqandikoo mooy journal suédois boobee lañ ci jublu nag lu leen dul yàq kat jour bu merengue boobee waaye ay mbiram des na ko toppandi xool ba xam fu wànniti mujjeeti gëtam Barça bu fekkee seen bëgg-bëgg bi am nañ ko ci doomu norvégien mooy Erling Haaland ñu man ko dalal bu fekkee antuwul nag bu soxandikoo ci seen sport na ñu dalal ko ci mani kii mooy Isaac te Newcastle wala boog Darwin Nunez bi nga xam ne jàpp leen bu baax ma ngay doxal ci liber bi kon ñoom kare àtte na ci ay pexe lañ ko defee ñu mën leen dalal foofee bu ñu soxandikoo ci këru xibaar boobee. Al Nassr fësal nañ seen troisième mooy moom lañu war moom moom lañu war a sañsee sax ci saison 2024 2025 comme ni ngeen gisee et que Bayern nag comme ni ngeen gisee ci image bi. Thomas Müller nag mu ne nag mënagul wax seen match bi war a amal contre Barça actuellement nag dañoo juur ci match bu am solo contre Stuttgart bi am ne bokk na ci équipe yi ngi leen di lim ci Allemagne waaye nag bés bu ci noppee nag des nay fësal ay kàddu ci équipe boobee Thomas Tuchel mu ne vraiment am na contentement bu rëy rëy ñu jox ko kàddu équipe bu mag boobee di Angleterre. ndax kat mu ne supporter xam nañ ko ci moom passion bi nga xam ne am na ko kat ci li ngeen moom mooy Premier bi kon xam na football Angleterre bu baax a baax kon ñi nga xam ñu ngi koy jugé naan allemand la ak na leenum xeetool mu ne xam na Angleterre bu baax a baax kon kat vraiment bu fa ñëwee teg fa kat lu leer vraiment war na fa mën a def ay jëloore moom nag dëggal na ne contrat bu dix bu dix-huit mois nag la fa xaatim ek nag dina tàmbali au premier janvier. ñëwam boobee li ko gën a umtu nag mooy que mondial 2026 bi nga xam ne jàpp lañu ci jublu de moo ne nag dina def lu mu mën na si pexe bu ko defee vraiment ñu amal fa ay jaloore yi nga xam ne ñu koy sént ci ñoom. man Manchester United noppee naa jaay kat euh, recruté bi nga xam ne wala boog recruté bi nga xam ne vraiment waneegu fa boppam te muy Anthony le Brésilien. lu ma de 40 millions d'euros kan la ñuy laaj est ce que loolee club bi noppee nañ ko teg ci talent boobee bi nga xam ne vraiment doon nañ ko séntu mu wane foofee bu waaye déception dëgg la nag moom mu am ñaar fukki ak ñeent de xibaar bi ñoom ma ko suqandikoo ci Mail Sport. moom mi ngeen mooy Paul ba mi ngi misaale ne vraiment nag àdduna am na fooy toll vraiment nga am doyo waaye boo nekkee ci jafe-jafe nag kenn du la faale ci loolee moo ko daal ndax kat kàddu yëpp na ko ba mu nekk jafe-jafe vraiment daanañ ko éviter fu nekk waaye nag depuis que kat bañ ko tuumalee loolee jàpp leen ci la nga xam ne laal na ko benn substance bi nga xam ne moom nee na sax xam lu woon ne vraiment nag dañ ko interdire ñu teg ko ay daan ci noonee nag vraiment ñi nga xam ne nag voilà entre guillemets mën a intérêt ko toppee woon ci wàllum invitation ak xeet yu ni mel maytuñ ko woon sax balaa muy ñëw. dafa yëkkati ay kàddu kon li nga xam ne leer na ba leer mooy que moom ka nee nañ gis Paul baa bu bees tàq ek nag positif dong de lay woote moom nag nee na dafa bañ di ñàkk nag buy doxal et que nag vraiment buggul kat di tricher kon moom kat dina liggéey ci anam yu mu gën a ñëw ci forme bi nga xam ne xamee woon nañ ko ko. xibaar bi ñu ma ko suxandikoo ci weesport qualification CAN de même que mondial. sept bi moom lañ dugal ci neuf dernier match doxoon nañ ko kon attaque senegal bi nag vraiment na brille pas à l'extérieur kon war nañu seen bopp loolee la koy xibaar bi nag def jàngat waaye nag bu ñu fàtte ne kat Afrique voyager dafa metti lool comme ni nga ko xamee waaye il va falloir aussi kat Sénégal muy gën a wane dayoom ci diwaan bu Afrique waaye nga toog 10 ans aussi ci éliminatoire bu kan boobu kenn mënu laa daan kenn mënu laa daan loolee aussi lu ñuy fësal la seeni Timothée Dieng ci ñaari machine doxal yëpp de titularisation de clincher rien à dire waaye en face c'était Malawi bi bi voilà xaw nañoo inquiété de waaye nag ak euh, climat bu hostile bi am na foofee doon taw kon condition yi voyage yooyu vraiment nag lépp luñ mënti wax mooy que xawoon na jafe waaye lee booy comme niñ leen waxee saison bi géré. Pathé Ismaïla Ciss bi am ñu xibaar yu bëri samp nañ laa ci moom mooy que vraiment nag. tarju baa ngi gën a wàññeeku nag mu milieu bu fanweeri at boobee kon kat la nga xam ne moom fa fësal mooy que vraiment nag moom nag lu ma douze minutes la doxal depuis kat bañ doon doxal ak waa EDC waaye nag mas yi topp yëpp doxalul comme ni ko mooy équipe 26 heures wala boog 27 la ñuy woolu waaye ñëpp ñoo doxal waaye li nga xam ne moo am am mooy que liste bi faw ñu def ci ay jointe ak ay nag ci wànn boobee Pape Thiaw aussi au mois de novembre ñu koy xaar liste sam bu bees taq bu ko defee vraiment nag mu indi liste bi ñu bëri moom lañuy xaar milieu de nañ ko waxte de bëri na ak centraux yi vraiment seen lim xaw na takku ci noonu faw ñu remplacer ok Ilié bi ci fànn boobee gis nañ Ismaïla Sarr mi ngi sooxi côté boobee diggante bi pourquoi pas mu gën liggéey waaye moom na xam ne kat vraiment yàgg na ci yàgg na ci tañeer bi amul dara luñ koy baal et que nag ci ñooñee nga mooy étoile montante yi nga wane seen bopp ak seen i club mën na ci lim kii nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Sabaly pour pas moom moom mi nga xam ne moom lañ tabb ne moom mooy zone bi gën a xarañ ci mois de septembre ci Ligue 2 bi ek nag moom sax vraiment mi ngi def ndokteel bu baax di ak club Metz boobee ndax kat moom mooy ki dàq dugg ci ligue bi avec juróom-ñetti but. mu juddu 31 décembre 2006 contre champion d'Afrique bu U17 boobee ñi ngi fësal ne voilà fukki at ak juróom-ñaar la am kon ñi ngi fësal ne moom moomee xarañtee fam mo koy may club yu bari ko piis si kon jàpp Serigne Fallou Diouf kon moom dana utili nag. vraiment nag foofee ci Italie club bi mooy atlanta de Bergame comme ni ngeen gisee mooy club bi nga moo jëlee Europa League bi kon club bu am dayo la ca tugal kon def nañ démarche si war bu ko defee ñu seqal waxtaan waa sa Foot ñu mën na nangu accord boobee kon loolee nag fësal ne ko Fabrizio Romano sa moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a indi ay leeral kon au mois de décembre la war a am 18 ans bu lépp yembee ngeen gis ko foofee nag mu dem utali fa doxal kon ñu koy souhaiter vraiment réussite totale moom même ne xarjee fam kenn du ko lam-lame dañuy jeexal xibaar bi ak kii nga xam ne mooy Cheikhou Kouyaté balaa yàgg na nag fësaloon ci woon ay xibaar waaye nag la nga xam ne moo am mooy que moom doon na liggéey ci suuf de bu ko defee mu am club desee na ci Angleterre sax la doon gën a jegandi ak club bi mooy Leeds United Leeds moomee mi ngi ci ligue de anglaise bi kon ñu ngi fësal nekkat Cheikhou Kouyaté moom vraiment nag manqué na benn occasion mu desandi ci Angleterre du côté de Leeds United ndax vraiment ancien capitaine des Lions boobee nag xam ngeen ne laataa ngay xaatim contrat da ngay jàll visite médicale malheureusement nag ci noonee vraiment da ko échoué nag kon ak lu leer ba leer mooy que moom dina wéy la ay liggéeyam nag pourquoi pas voilà nag euh, ci lu yàggul dara mu am club nag gis nañ fi kii mooy Pape Abou Cissé ginnaaw ba mu la jiyee visite médicale am ca Grèce kon teg nañ ci ab diir dem mu gën a liggéeyaat utali def foofee ca Qatar comme ni ngay waxee mooy que am na âge fooy toll vraiment nag euh, ak lépp luñ ko mën a souhaité nag bu gisee Qatar wala boog Arabie Saoudite vraiment nag jël na am Angleterre sa le haut niveau waaye am na fooy sa carrière voilà nag da ngay xalaat sa retraite kon Cheikhou Kouyaté mi ngi noonee jàllu visite médicale am kon du mën a sit du mën a xaatim contrat ci lii club anglais boobee. kon jox dig ci yeneen sur Sport 221.